bon li waral fit bu taxaw de Sangalkam euh, c'est très simple c'est parce que tout simplement euh, la jeunesse de Sangalkam euh, dafa dem ba à un certain moment dañoo maar si li fiy xew donc mooy ni ñuy téye suñu suuf si di ko tong-tong di ko jaay à l'insu de la population te ëllëg si on a une jeunesse boo xam ne dañuy màgg te dinañu màgg fii du ñu fekk dara comme héritage bu ñu leen fi war a bàyyi te ñi koy def nekk ci pendant plus de vingt ans diko def et les mobiles pratiques se répètent donc il a fallu que une jeunesse taxou mais halte de li dafa wara taxou seulement que dafa am lo xamne dafa wara changer dafa wara changer quoi système bi fi nek dafa baaxul quoi.

dem leen ngeen xool ci seen budget li ñuy ne dafa développé Sangalkam ngeen xool ci rubrique yëpp ban ngeen ciy gis loo xam ne dañ ko jël ci budget Sangalkam liggéey ko biir Sangalkam doo leen ci gis dara lépp lu fi am c'est l'État loolu rek la quoi loo xam ne aussi def ko def d'une manière

te loolu ñoom ñoo ko bind seen kayit boo leen bëggee je vais vous montrer les documents ñoom ñoo ko bimé sur papier noir et blanc